Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum asalaamaaleykum mbokki mouride yi mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare tey jital si nuyo bek siyaar bi Cheikh Mouhamadou muntaha Mbacké mom Serigne Bassirou ñaanal ko sa borom mu yagal ko fi lol te wéral ko ba mbollem naal yi nga nako ko liggéel maam ju tedd ja serigne Bamba sabrom borom doole ko kattan ak man-man dooleel ko defal ko tawfiix ba ni ko bëggee mu defe ko ni non lañ koy ñaanalé Serigne Amdi Fall mom serigne Modou Fall menda sa borom gën ko fe yagal te wéral ko ba ndigal ndigali joggé kër serigne Bamba yépp mu mën ko jëfé ko bëggee di ñu ko digal ñu koy jëfee ni ko bëggee di ko ñaanal mbooleem murideek mbooleem jullideek ku leen yéene jàmm ñu ngi leen di dalal fii nga xamante ni nii mooy ndaamaatu gannaaw loolu nag dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin li tax ñu koy wax nag mooy ku Serigne Touba liggéeyloo war ngaa sant ku Serigne Touba liggéeyloo jox la kattan boo ko liggéeyalee war ngaa sant waaye ku Serigne Touba liggéeyloo jox la kattan boo ko liggéeyee nga defe ko nu mu ko bëggee war ngaa sant. li tax ñu wax loolu nag mooy depuis le 24 xam ngeen ni ba tey jii la di le 6 mars 24 février ba le 6 mars di 11 jours yoo xamante ni gannaaw ndigalu. kër Serigne Touba Gueye Cheikh Mouhamadou Mountakha woo nañu fii nga xamante nii mooy si corniche bi ñu liggéey ko defe ko ni nga xamante ni moom la ko noonu la ko sëriñ bi bëggee mu woo ñu fee nga xamante ni mooy marché Ocass ñu liggéey ko defe ko na nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi bëggee. tey jii nag sëriñ bi woote fii nii nga xamante ni boobaag léegi gis ngeen wan nañ leen ko ñaari yoon muy liggéeyu fii nii nga xamante ni mooy kàmb ya tey sëñ bi woo fi nag mbooleem murid yi ne nañ fi daje tey yeggali li nga xamante ni mooy liggéey bi ndax bu ngeen xoolee xam ngeen ni liggéey bi cate na loolu gan euh, bu ngeen xoolee xam ni liggéey bi cate na loolu ak lañ leen waroon démb wala ak lañ leen waroon li nga xamante ni mooy bërki démb kon muridi tay lepp lo xamanteni ni xewna fi tay ci ndamatu fi ni ci gambia incha allah dañ leen ko wan dañ dañ leen kenn wan xet wan wo xamanteni dana melni ni ngi fi taxaw gis ngeen mbolo mi ñi ngi ni taxaw murid yi góor ak jigen mak ak ndaw ñepp ñew nañu kon li ñi dundu tay bu soobee yalla mom ngeen di dundu comme neen ka daan dundé dundé su ñun ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo leen di jege leen yi saa su kon nañ andondo daal di tàbbi leen li nga xamanteni mo xew fi tay ji ci ndamatu suba lañuy tambalé ak yeen muy waxtu wi yi ba kérok ngon di jot inshallah lu fi xew rek dangeen ko xam jaa def la la la la fa la la la ilaha illallah la ilaha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 la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah la Allah. koy jërë ngeen jëf murid yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ni ngeen ko gisee subaak léegi ñi nga ànd ak yéen liggéey bi fii nga xamante ni mooy Touba Ndamaatu fii ci Kambuya si ndigal lii nga xamante ni nag Baye Fall yi ñu ngi koy liggéey te mu jóge woon si ki nga xamante ni mooy Serigne Touba tabbi ba biir kër Cheikh Ibrahima Fall ñu tàmbali ko tàmbali ko woon nag depuis le 24 février ñi ngi taxawoon nag ki nga xamante ni mooy Serigne Fallou Galass Sylla xam ngeen ni bërki démb jël nañ ko fii waxtaan ak moom waxtaan bu yaatu ci li nga xamante ni mooy liggéey kàmb gi waaye tey nag dañoo bëgg a def résumé waxtaan ci ndigal lii nga xamante ni moom nag ku ci war a wax la ndax ki nga xamante ni nii mooy porte-parole xalif général des Mourides muy Serigne Bass Abdou Khadre yàlla fi yàgg loolu te wér moom mi ku ku takkook moom la ba fépp fu muy dem ba dem démb ci mujj bi muy ñëw marché Ocass ñoom ñaari ànd kon liggéey bi war nañu see mën a leeral lu bare bari dañoo bëgg a def résumé nag tey Serigne Fallou gannaaw bu nuyoo ba noppi ci liggéey bi nga xamante ne tàmbali woon nañ ko corniche ba tey fii nga xamante ne mooy Kamb waaw ginnaaw bu ma waxee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi seeralaat murid yëpp sama sant Serigne Touba Khadim Rasoul di sant Cheikh Mouhamadul muntaha ibnu Khadim Rasoul waye di gëna santat sama wasila di Serigne Cheikh Anta Mbacke mu Serigne Modou Rokhaya Mbacke di ñaan suñu borom yagal ko fi doli wërëm di jaajëfal njabotu mam Cheikh Rahima Fall jep teg ko ci loxol Serigne Amdi Modou mbenn Fall. waaye jaar ci sëriñ euh, Cheikh Ndiaye Mbeng sëñ euh, Saliou Fat saw ñooñu di ay jëwriñam sëñ fallu Fall mu sëñ Modou Aminta ak rak euh, jëwriñam sëñ Moustapha di jaajëfal nag buntu kër maam Cheikh ma Fall yëpp di ndokkeelaat sëriñ Cheikh Ndigal Fall ak mboolem buntu kër maam Cheikh Rahima Fall yi. yaakaar naa ne bu ma ñëwee ci résumé li may njëkk a résumé rek mooy sëñ Touba daa tënkoon yoon wi ndax Cheikh Ibra mooy yoonu murit sëñ Touba mooy murit bi Cheikh mooy yoon wi jëm ci murit bi. Euh, ba ma waxee loolu mooy Cheikh Ibrahima Fall bi mu jaayante ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul dafa wax sëriñ Touba ne ko li woon ci téere yi moom wër naa ko taali jànguy doomi soxna yëpp dajal naa ko te man ci yàlla laa bëgg a dem te du ma jaar ci ay téere mhm. ci yàlla laa bëgg a dem te du ma jaar ci ay téere sëriñ Touba ne ko loolu def ni sahaaba yi defoon rek moo koy maye inna laaha stara min al mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul janna Cheikh Ibra ne ko loolu lam leen jural taxumaa jóg muy àjjana la ñuy daw taxumaa jóg ngir ragal sawara man jëmmi yàlla ji laa bëgg te muy xenc sa jëmm ji sëñ Tuubaa ne ko man mii dey jëmmi rasulullahi ji ndaw lim doon ndawul yonent bi taxut ba bëgg ko suñ borom moo ma bëgg loo jëmm ja dahaani ilaa matxi nabi hubbu saatihi Cheikh Ibra ne ko foofu laa ne ci yow sëñ Tuubaa ànd ak moom liggéey bi Cheikh Ibra jaayante kon yoonu murit bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati ñetti étape rek la am mooy liggéeyal sëriñ bi xidma li mooy li Seex Ibra Fall di def aw bi xubbin cofeeluk Seex Ibra ci Sëñ Tuubaa amul kenn koo xam ne mën nga caa mel ak Seex Ibra ndax mas nañu wax ne Seex Ibra am na ku mas a rëdd aw rëdd di ko waxanteeg moom ci gën a bëgg Sëñ Tuubaa bi mu ne dara na ko sëñ Touba mii Cheikh Ibra toon rëdd ba ne ko sëñ Touba xajut ci suuf kon kooku foofu la ak cofeelam mën a mën a yem kon yaakaar naa ne loolu soo fekkee ne liggéey bii de ni ko Cheikh Bass waxee woon démb ne maam Thierno moo ko waxoon Cheikh Ibra ne ko dëkk bi lëndëm na te ba mu gënee ba mu lëndëmee yaa wane woon aw yoon lëndamaay gu toll ne gëm moon nag lëndamaat na ko kon waneelu yoon mhm. yaakaar naa ne lëndamaay gu mel noona moo amaat ci dëkk bi ku ne xam ne boo xoolee jaww yi dëkk bi ni mu weexe léegi boo xelee nag ngelaw li ni muy génne mhm. xam ne jaww ji am na lu ko fattoon ngelaw li am na lu ko téye woon mhm. loolee nag la Cheikh Sidi Cheikh Mouhamadul Mountakha jox ndigal sëñ Amdi Modou Mbenda corniche bi marché Ocass kamb yi liggéeyu weer la lu ci nekk liggéeyu weer la weer woowu daa mel ne Baye Fall yi dañ koo def moom ci fukki fan ak benn. ñetti weer yooyu ñoom dañ ko def ci fukki fan ak benn. le 24 lañ tàmbali tey ji le 6. tey le 6 11 yaakaar naa ne boo joxoon état bi ëpp doole ci adduna bi. ne ko dëgërtiisal ma corniche bii nga xam ne li ko manque 30 kilomètres bëriwul mhm. la nekkoon nam mel ñu dindi ko ci ci ab semaine. Mhm. wala matu ko marché Ocass ak ni meloon ak ni mu woon. ñu dund ko ci lu matut semaine ndaamaatu kamb yi nga xam ne boo xoolee surface bi yaatuwaay bi xool longueur bi mu amoon suuf nga xam ne fi gën a gàtt am na huit mètres. Mhm. fi gën a xoot am na onze mètres suuf. loolu ñu dajal ci ay fan yu néew sëkk ko ba mu maase tey jii war a noppi tey. Mhm. yaakaar naa ne waris na cee mën a jàngate ne sëñ Touba te amut kenn koo xam ne mën ngaa estimer Baye Fall ne ana Baye yi nan ban ban kaar lañ am ci yoonumu murit boo doon wax ne nañ génne Baye Fall ci yoonu yoon yi day jeex. Hmm, day jeex ndax lii fi daje amul ku yàlla bind ci àdduna ku mën a génne mbooloo mu toll nii ci àdduna la ko tàmbalee màkk ga diine ji wàccoon réewi tubaab yi ëpp doole ci àdduna ñi gën a bari alal ci àdduna ku mën a génne lu mat million yi nit nii ñu daje fi benn barab nga ne leen yàlla képp laa leen fa dajalee boole koog li ngeen am jox mu ko ci def ci seenu ñàq mm-hmm. ñu toog ak yow fukki fan ak benn ca doyaluñ ku dul sëñ Tuubaa mënoo am loolu loolu nag yàlla mi ngi ko amee ci Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine sëñ Touba nag noonu woon ñett sawara yey na leen wax ko sëñ Bay Jaxate sëñ Bay Jaxate na ko ñett ñooñu ku ñu ko baaxee mu jël mu ne ko kuy sàllaw lu soxna jaara kuy diingat mbirub Ibrahima Fall ku may wutal morom ñett ñooñu ñëpp sawara yey na leen kon xam nañ ne mbirum Cheikh Ibrahima Fall mooy mooy lu weex tàll démb damay wax sama benn sëriñ muy sëñ Seexanta mu ne dafa am kilifa yu ko a laaj na ko jullit boo xam ne day tuddoo ak jullit yor tulu jullit te du jullit tu du woor te bu dee nee na àjjana la jëm loolu yow fan nga ko gis ci alxuraan mu ne ko loolu de man gis naa ko ci alxuraan mu ne ko foo gis mu ko ci murit murit nga ci biir alxuraan mu ne ko noo ko gis ci biir murit mu ne ko ñii nga xam ne ñoom ngay wax ne ñooy julli tey woor sart yi nga xam ne moo leen di musal ci sawara wax ma ba kenn mën na ko ca matale wala déet daal di ko naa baatu fa waylun lu muy firi mu ne ko fa waylun la de moom ay duma rek lay doon ndax moom ak rëbbug yàlla la fa waylun mu ne ko ñu ñu ko moom mu ne ko lil musallina jullikat yaa yaako moom yan jullikat allasiina hum an salaatihim saahoon eh, eh, eh, fa waylun lil musallina allasiina hum yuraa'uun an salaatihim saahoon wa yamna'uuna al-maa'uuna ak nam ko waxee ca aaya ba aaya ba jeex ñetti étape yooyu amul kenn kuy julli koo xam ne boo kàbbaree sa digganteeg yàlla dakk nga sa contrat ak àdduna yàlla rek nga jàkkaar say bët du xool yàlla sam xel du xalaat lu dul yàlla say nopp du dégg lu dul yàlla saw làmmiñ du wax ci lu dul yàlla étape yooyu laa ne kun ci natt ku dul sëñ Tuubaa daañu la duma contrat boobu kon duma yi gën a njëkk jullikat yi la ñeel waaye nag àjjana daa am ñun ko dig inna lasina amano wa hamilu salihati ñooñu ñu lu ñu am jannaatin tajri min tahtiha al-anhaar ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla tey jëf-jëf ju sell ñooñu moom ñoo moom àjjana Baay Faal yi ku leen mën a génn ci jëf ju sell ko fab sa lépp jox ko yàlla sa alal say xalaat sa dund sa njaboot sa lépp nga jox ko yàlla te contesté woo ci dara fukki fan ak benn nga dëgër sa corniche bi ba mu jeex génn gar euh, marché occas sëkk kàmb yi ba noppi génn sa alal ci laajoo sëñ bi dara te soo noppee ñaan gi la sëñ bi ñaanal sax mën nga ko fee bañ a xaar delluwaat waajali ndogu yi. te dara ndogo yi dara du ci manqué te munu ñoo tax nga dellu ginnaaw ca buñ ne lee ana li nga am nga naan yàlla rek lay doon ku dul Seex Ibrahima Fall nekkoo foofu ci yàlla kon yaakaar naa ne lii ñu gis tey jii war naa dalalaat xelum yoonu murit ñu xam ne yoon yi ba tey ki ko moomoon na ko moom yoon yi ba tey ki koy sàmm moo koy sàmm benn borom la am benn gardien la am borom bi mooy sëñ Touba gardien bi mooy Seex Ibrahima Fall kon ñu ne ci mbedd mi di coow nañ xam ne bu Seex Ibra woon tey jii de sëñ Tuubaa woon tey jii damaa bëgg ko waxati yoonu murid dara Baay Faal yi duma la réew moo mën a nekk boo duggee ci suuf daañu la fi fekk boo nee ci asamaan daañu la fi fekk kon tooñ ku la man ak ñàkk jom la bokk tooñ ku la man ñàkk jom la bokk te ñii soxla wuñ seen bakkan dara soxla wuñ seen alal dara luñ soxla mooy ngërëmul sëñ Tuubaa ngërëmul sëñ Tuubaa mooy ngërëmul yàlla kon yaakaar naa ne tey jii Seex Mahamadul Muntaxa bég na yoonu murid yëpp bég nañ sëñ am di Modou Mbenn bég na te loolu waykat boo xoon ne Cheikh Ibra newoon na li señ sëñ Touba ngi dund fu mu samp mbër ma teg mbër ma ci wet ga loolu feeñaat na ci diggante sëñ am di Mbodé ak Cheikh Cheikh Mamadou Mountakha wax naa ne ñetti sët a wuutoogun sëñ Touba ñetti sët a wuutoogun Cheikh Ibrahima Fall waaye ñaari sët yi daje li ñaan yoonu murid amul tànk ginnaaw tànk kanam lay am ñoom wane nañ tànk kanam yi bu baax a baax kon ñoo ngi ñaanalaat sëñ am di Modou Mbenn yàlla fi gën a yàgg te wér jëwriñam yi mu jox leen liggéey bi yàlla fi yàlla gën a yàggal gën leen a doole ak yëpp di jaajëfal njabootu maam Cheikh Rahima Fall gépp di ñaan yàlla nag wa in min shay in ilaa indana xazainuhu waaye nag wa maa nunassilhu ilaa bi xadrin maalumin maa ñaan daal mu soob ko moom yàlla magasinam yi nga xam ne ci la denc wërsëg wi denc ci alal yi denc ci dollar yi na sotti kër maam Cheikh Rahima Fall muy sotti ko suba ngoon ba lu sëñ Tuubaa bëgg ñu mën koo jëfee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh